dañu nekk xale rek fonk le pouvoir judiciaire fonk le pouvoir judiciaire mus naa la ko wax depuis Moustapha Soran la woon garde des Sceaux man bima ma maire dama jël 1 hectare dagal ko ni le pouvoir judiciaire dañu wara a am sen territoire bop ba bi ngeen di décider pour réformer euh, l'ancien siège de la gendarmerie à Bambey té lolu yépp ay considération la yo xamné dañ ko def su né nak le pouvoir exécutif en l'occurrence le président de la république dit le président Macky Sall moom le pouvoir judiciaire def ko pouvoiru bopam. bu ko pouvoir pouvoir bopam sax mom moy clé de voûte des institutions le chef du conseil supérieur de la magistrature Wayé nak utilisé utiliser contre l'opposition Il utiliser contre pour politique Il xéxé utilisé contre opposition loolu sax nakari won nañu mais ñu ngi ci mais suñu ñëwé nak benen exécutif boo xamni amul lenn loo xam ne war na utiliser le pouvoir judiciaire nga am ay magistrats ñu fonk leen ñu jël leen di contester seen décision pour des pour des questions politiques loolu teguwul fenn man dama lay ñaan yow mi garde des sceaux te moo tax ma insister ci le titre de garde des sceaux les sceaux de la république monsieur le ministre yow mi garde des sceaux protéger say magistrats yow mi garde des sceaux am nga benn ay magistrats yoo xam ne xëy na parce que nous nga xam leen waaye nag ay jeunes nous ñu nekk ci suuf di doxal liy dëgg di jël éléments sur la base de constats des auxiliaires de la justice ñu def li ñu war def replacer li ñu war a replacer kenn ban intérêt l'administration territoriale ça pose même un problème de recevabilité parce que leurs intérêts ne sont pas menacés ñoom ban intérêt lañ ci am bay en justice de remettre en cause des arrêts de la cour d'appel parce que tout simplement newoon naa qui waru a bokk ki qui wara a ki waru qui a bokk duñ ko C'est loolu monsieur le ministre c'est yaay alternative C'est te qui maintenir en paix le pays te am nga ci rôle am nga ci rôle ci sa âge am nga ci rôle ci sa daraja yaay garde des sceaux bu amee ko def naka sudul noonu replacer ko dans le contexte normal replacer ko delloo ko parce que bu ñu naan justice la vérité moo tax dañu bëgg justice bu crédible dañu bëgg justice bu indépendante dañu bëgg justice bu transparente justice bu kenn dul utiliser justice boo xam ne benn manœuvre lalu ko ñu taxaw ci justice boobu parce que nag monsieur le ministre dafa am loo xam ne dañuy dellu cosaan rek su que ni kenn du dee ñaari justice bi réglé wul lii ñi régler, war a dinañ ko je vous remercie monsieur le président je vous remercie chers collègues